depuis ci atum 1993 la Cheikh Femme daal di dugg ci wàllum métier couture naka noone faw rekk mu amal fa ay at yu bëri ci wàllum jàng laata muy ñëw taxawal entreprise am. man maa ngi jaar jaar si jaar jaaru euh, xale jaa ngi métier mais dem see teel a maa ngi si dugg 93 laa jàngi métier ba 2003 sama patron ber ma waaw ba léegi maa ngi alhamdulilah. maa ngi gérer sama entreprise di doxal nànk-nànk daal. naka noone moom Cheikh Fam di wax it entreprise li koy taxawal mooy jom ak fulla waaye it nangoo liggéey. Mm, ni ma koy waxee saa su ne rek euh, entreprise caaxaan yoru ko caaxaan yoru ko te suñu mbokk téer yu bëri des fois dañ ciy duggee si ay loo xam ne du ne liggéey soo ko yoree euh, da nga koy respecté da nga koy bi su ñëwee. li mu bëgg nga defar ko parce que client bi mooy mooy mooy mooy roi li mu bëgg nga defar ko jour bi nga ko wax mu pare te ni mu ko bëggee tamit nga defee ko noonu soo ko defee daal entreprise bi dina yàgg te di nga mën a jubóog nit ñi te doo am benn problème waaw ni daal laa gérer sama entreprise te boobu ba léegat ah, maa ngi sant yàlla daal parce que gisuma si benn problème at li ma si bëgg a réaliser yëpp maa ngi si maa ngi siy def ci entreprise am boobule Cheikh Fam daldi am foofee ay employés yu bari waaye it ay ndaw yi nga xamante ne ñu fa ngir jàng seeni métier. ñun ay maître formateur la ñun bëri na ñoo xam ne sax dañuy jóge si école yu ñëw ñu formé leen ñu bëri na élèves yoo xam ne sax dañuy ñu bëri dañuy jóge sa école yi ñëw mais dañ leen di waat ñun man nag alhamdulilah di booba léegi euh, forme naa plus de quinze personnes ñoo xam ne si man lañ jaaree. ba ñuy ñëw mënul dara ba tey ñoo ngi seen entreprise di liggéey waaw foofu moom man maa ngi si sant bu baax a baax daal formé naa góor formé naa jigéen waaw formé naa ay góor formé naa ay jigéen waaw métier métier bi léegi dafa dafa dafa yombutul parce que léegi soo xoolee euh, patient bi xale yi war a patiente dëgg dëgg dëgg léegi dafa duñ ko si parce que man damay toog naan sama élève man jàng naa ko 10 ans te 10 ans yooyu bëriwu ko jàng ñaw man yoraguma fi xale bi fi yor yor ko 10 ans te man jàng naa ko 10 ans waaw loolu lépp dafa dafa dafa dafa jaral tamit dafa ñu koy wax xale ñuy teey parce que métier du parax parax rek booy jàng nii rek dem soo demee tamit noo def dina feeñ sa entreprise waaw da nga ko a jàng ba mu mokk jàng mokk bi du ñëw rek ak gérer clientèle bi dafa di bokk yar gi di bokk tey gi communication di communiquer nit ñi di see bokk tamit waaw loolu daal xam naa ne xale xale bi si jaar moom di nga di nga réussir daal. waaye soo jaarul ngi safaan ñaari côté yu am na si am ñoo xam ne fii la nekk si man ba ñëw xamuñ dara maa leen jàng métier am ñoo xam ne peut être dañoo jaar feneen peut être seen formé formation bi leen formé foofu moo des et man soo ñëwee dama siy jàpp te yàlla tax dama siy jàpp te yàlla tax dimbali la gunge wàll gën la àggali formé formé boobu su dee doo nga doon xale bu xale bu xale bu am yar waaw parce que ni may dimbalee nit ñi tamit noonu laay tamit bañ ku yàq sama entreprise sama entreprise tamit dama lay dama lay dama lay dama lay dàq aw ma si aw ma si sentiment parce que ñun amul lu fii leen am quoi. tey jii am na sax différence ci wàllum apprentissage bi nga xamante ne moom la ñuy amal di ko jox ndaw ñi ak école yi nga xamante ne dañuy jébbal ay formation waaye naka noone ay atestation de formation. dafa am dafa am dafa am ñaari différence ñoo école yi école yi ñoom dañ lay former jox la. Euh, attestation diplôme mais ñun ñun ñun ñun suñu métier euh, suñu suñu jàngal demul noonu parce que ñun soo xoolee ñun ñi nga xam ne xale yi nga xam ne des fois dañuy jàng école ba xamatuñ dara ñoo leen ñuy jox ñun ne suñu jàngalee ba nga mokkal dañuy woo mag ñi mag ñi mag ñi si xam ne si marché bi leen nekk ñu toog benn ngoon say waaju ñëw ñu ñaanal la te yàlla tax mais bëgg nañ nag àdduna day avancé parce ay jamono année yi passé woo nañu ñun maître acteurs yi pour duñu teg si yoon pour lu xam ne ëllëgee su xale yi mën a kii leen jox tamit papier parce que papier te mooy yoon parce que ñun dañuy gis ku ku jàng ba yor ba maanaam li wax rek dañuy gis ku mokkal nga xam ne sa école yaa ko dàq yaa ko dàq liggéey mais problème boobu mooy problème mu ñoo école yi doo leen am kayit ak différence mooy teew xale yi fi nekk ñi ñoo mën ñooñu ñoo mën ñooñu fop mais ku nekk sa système bi ngay bere quoi mais ëllëg état bi jàppale ñu tamit ñu toll si yéen mën a joxe suñuy diplôme. métier ñëpp fu ma fi jàngal métier ba toog ba ma yëkkati ber la yëkkati naa am machine bi ma mën sama alal jàppale la waaw man man waaye euh, du du ñëpp du ñëpp parce que am ñoo xam ne dañuy ñëw bëgg a parax parax rek non non mais ku toog ku toog ba li li temps bi nga fi jël ñu xam ne kat carrément yow a laa mën a jàppale dañ la jàppale te yàlla tax. parce que tamit loolu dong moo tax parce suñu patron dañoo jàppale ba ñu toll fii ñu it soo su la jàngalee métier ba nga mokkal nga retourné tamit teg teg nuy cëru kilifa dina retourné ñu di jàppale si xam-xam si matériel ak li ñu toll suñu doole daal. ci loolee mu ngi ñuy xamal it gérer entreprise dafa am ay jafe-jafe yi nga xamante ne yooyu yoo ci nekk. suñu jafe-jafe métier bi mooy comme jafe-jafe métier yëpp rek parce que métier yi léegi dafa bëri ñoo xam ne dañ ko yàq yàq mooy da ngay gis koo xam ne. day am moyen am am xaalisam tijji atelier te xamu si dara waaw loolu moo yàq suñu métier bi soo xoolee ki toog jàng métier ba mokkal ko ubbi atelier am bokkale ki nga xam ne dafa ñëw yor xaalisam rek tijji atelier maanaam da ngay gis ni yaakaar métier bu yomb la fekk métier bu gën a compliqué si métier yi la waaw te tamit des fois ñooñu tamit dañuy fa dañuy yàq tamit xelu xale yi léegi dañuy gis xale boo xam ne day commencé mën a ñaw tuuti rek tombeek koo xam ne dafa am xaalisam tijji atelier soo ne kat kaay ma fay la nangam nga dem fekk yow sa métier moo ko yàggalee dem ba métier bi day yàqu fépp la yàqu waaw loolu loolu di yàq suñu métier bi si la bokk waaw mais teewal xale yi am yar yi ba léegi nag ñu ngi toog di jàng métier ba léegi waaw loolu moom lu ñuy lu ñuy métti suñu métier bi la quoi. dafa bari ñoo xam ne dañ koy dañ koy dañ si ubbi at li te xamuñu si dara quoi waaw. ci loole am na benn pàcc bi nga xamante ne ñoom it def nañu taxaw seetlu mooy wàllum concurrence ak entreprise yi nga xamante ne ñooy defar ay produits yu jóge ca bitim réew. parce que ñun loolu nga wax noonu concurrence bi xeex nañ ko ba léegi gañe nañ ko parce soo xoolee Sénégal bu njëkk ba soo doonoo bureaucrate soo solu costume rek pour yow doonoo dara mais léegi gis nañu xeex nañ ko ba gañe ko parce que soo xoolee sax. Euh, gouvernement bi toog nii soo xoolee en général ñu sol yëre olof la ñuy sol muy costume africain bi yooyu ñun Sénégal fii ñoo ko créé ñaw ko ba fu day dem ba léegi suñu gouvernement dañu koy sol. kan loolu kat ñun côté boobat ñoo ngi si sant yàlla bu baax parce que ñoo ngi njëkk ba daanañu gagné mais léegi kat heureusement ñun dugal leen si xelu sénégalais neen affaire bi du foofa fii la waaw métier bi ñu ñoo ko yor te li war a doxal suñu métier bi ñoo koy créé waaw sama mbokk téer yu bëri si créé chaque jour yaa ngi si média bi ñuy créer ay modèles yu ñëw yu macha allah waaw ba da ngay gis sax ñun dañuy toog fi sax nekk bitim réew dañuy commande ay ñëw yoo xam ne dañuy ñëw fii léegi ñuy ñëw foofu diñu indi léegi ñooy ñëw di yóbbu foofu waaw am naa bëri na ay clients daal yoo xam ne neewuñ neewuñ Sénégal ay Europe ak Afrique ak fu ne ca bande bu ndakaaru métiam ñaw bi dafay jànkoonteel léeg ay jafe-jafe loole dara waralu ko lu dul ñàkk fulal bi nga xamante ne état bi jëmale na ko ci ñoom waaye it consommation locale bi nga xamante ne daanaka fulaluñu ko. jafe-jafe ñun ci banlieue bi mooy fii da gis ay téer yoo xamante ne gëm seen bopp la ñu gëm seen bopp te mën a liggéey gëm nañ seen bopp lool te mën a liggéey lool sax. c'est que leen dong mooy cat cat li tamit des fois euh, état des fois nii ñuy daf ñuy daf war a ko quoi waaw maanaam nit ki doo du question da ngay ñëw fekk ñu féete kaw xale yi rek nga di leen jàppale da war a ñëw dugg si biir banlieue bi xool xale yu ndaw yi nga xam ne ñoo ngi soog a atelier nga di leen jàppale waaw ñu côté boobu suñ ko amoon moom dina baax lool parce que concurrence bi parce que ñi ma gis ni si banlieue bi ñu gëm liggéey la nga waaw da gis xale bu ndaw ubbi atelier yor ñetti machine am ne day dem dem dem ba yor say entreprise waaw côté boobu daal lañ lañ leen ñaan euh, ñi yor réew mi jàppale ñu si daal waaw te xam ne ñun ni ko xale di waxee léegi naan ay basaak basaak ñu gëmul yooyu ñun tekki fi lan gëm tekki suñu réew quoi waaw tekki suñu réew leen gëm. c'est moom nguur gi fu jugee nii moom daana diggoon nañu ko waaye loolu comme ni koy ni koy Sénégal di wax rek toog muy dox moom ñu waroon wax moo ko yàq parce que ñëwoon nañ fii ñëpp ñun dañoo yor ay association mel ni association finance mel ni association mt man mi maay trésorier bi mais teewul gars yi dañuy ñëw dignu mais suñu diggee ba ñu ne ah somme bi génn na da gis borom alal si kaw ñoo koy mujj récupérer du egg si su ñun waaw du si su ñun état bi daana ko waxat mais day tagee sa kaw waaw ñu bëri ñun daan toog di ko xaar mais dañ ngay xaar ba sonn doo gis dara après da ngay mujj nekk si li nga nekkoon rek ci xaar suñu borom daal waaw mais soxla nañ ko soxla nañ ko état li muy dem di ko santaane feneen war na ñëw sant na ko suñu biir te xam ne ñu ngi koy sant dàqunu ko mënuñu gënu ëppale wuñu ko daal waaw kooku moom saako nag sa état bëgg nañ ko muy ñëw fii di sant yenn liggéey yi parce que ay téyër lañ moom la lañ jàng jànguñ leen lu ñu ñaw kon lépp luy cadre ñaw ñu war nañu ko mën a jox ndax àdduna bi kenn du dox te solo lu téyër ñaw waaw kenn du dox te solo lu téyër ñaw daal. gannaaw ay semaine rek a des ngir ñu amal lii du feetum tabaski Cheikh Fam moom ak ay employé yam ñoom ñi ngi am taxawaay bu mucc ayib. ngir rek mën a ñaw ay commande yi nga xamante ne yooyu la ñuy jël. da nga wax tabaski mu ngi ñëw egsi na ba pare mais loo gisee dañ koy organiser man nag alhamdulilah sama samay client dama leen tàmmal man teel a ñëw teel a ñawlu teel a pare teel a jot sa yére moo tax man tout le temps man heure bi nii nii nii instant yi sax maa ngi commencé ñëw ñëw tabaski yi waaw parce que sama client yi loolu laa leen tàmmal man nee naa leen ku si bëgg a ñëw ñëw bu baax da ngay teel a ñëw. soo teelee ñëw teel la ñëwal tegal la heure boobu amee xaaj ñëw jël si parce que nit ñi tamit affaire yi àdduna dëkk bi neexut da ngay jàppalante rek waaw su kii soo xamee ne yow carrément ñi yaa leen su feet yi ñëwee da nga teel a avertir ñu teel a indi suñu indee nga teel a ñëw même suñu yoru xaaj nga bàyyi ko ba heure bu yor yore xaaj ñëw jël si ko parce que loolu jàppalante lay doon quoi te man nag nga gis nii euh, si si média lay waxee ñi mi ko dégg ñu bëri dégg man du ma jël lu ma mënut man fu ma jëlee rek ba commande boobu xam ne lii laa mën a liggéey rek damay arrêté waaw damay arrêté ak loo mën a ak mën mel la damaa carrément li ma mën laay jël li ma mënul du ko jël moo tax man du am des fois jafe-jafe client yi dama naan ñu ñëw ma leen a ñawal parce fu ma demee ba xam ne lii kat ëpp na ma doole dootuma ko jël parce soo ko jëlee tamit bëgg lu neex nit ñi ba jël ko mais finalement après ay jàppal ay jàpp ay coow ngeen ni mujjee bi yàggul dara yàggul loo gis day romb day jeex daal moo tax man chaque fois man man noonu laay liggéeyee li ma mën laay jël li ma dem ba mënu ko dama na ah mënu bañ naa ko man sama bopp laa koy njëkki sama waa kër dama leen teel a ñawal dencal leen kan kuy teel a ñawal say waa kër kan bokkul ak ñi si ñi si ñi si ñi si jàmbur kan képp ku bëgg a liggéey man loolu laay wax da teel a in sa liggéey ñu liggéeyal la parce que ñun amuñu temps toog di continuer te tamit dëkk bi xaw day wax daal